abonnez-vous Thiowli Sénégal abonneel ci Thiowli Sénégal. abonnez-vous Thiowli Sénégal. abonnez-vous Thiowli Sénégal. Sénégal. ndax man li ma soxla ci xibaar yu wér te wóor Thiowli Sénégal. waaw maa ngi tudd Medoune Diouf euh, sababu ndaje mi nag comme ni ko sama frère Mohamed Fall waxee sànq ci nasaraan euh, dañu ñëw wax tënk ko ci wolof dañu am benn kuréel gi ñuy wax euh, soutenons Macky kuréel googu nag tey. dañuy taxaw fi di lancer euh ñu ko waxe suñu programme ci fi ci élection yi ñu jëm ndax niko ko Mohamed Fall waxe rek ci français moy tay kurel gi bo len xolé maillage kurel bi Mohamed mo ngi deug bo walo man ma ngi dëkk bo Bawol ñi ñoo ngi Dakar ñeneen ñi ñoo ngi partout au Sénégal tay dañoo dajé fi ñun ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Dakar ñu ñoy dajé fi tay lancer appel à l'ensemble de la classe politique à l'ensemble de de la coalition Benno Bokk yakar que le candidat bi nga xam mom le la candidat bi nga xam ne tey moom la président Macky Sall moom lay joxoñ ñun ndaw plateforme soutenons yi moom la ñuy tànn moom mooy doon suñu candidat te moom la ñuy battarale campagne képp koo fu waay mën a dëkk ci Sénégal nag ñii dëkk Touba ñii dëkk Waalo ñii dëkk Ziguinchor ñii dëkk Kaolack ñun ñëpp kenn ku ne fa nga nekk amuñu responsable X wala responsable Y wala kenn koo xam ne dañuy bootu sa ginnaaw na responsable coalition yëpp xam ne suñu décision

la coalition benn Bokk Yaakaar taxaw nañu carrément ne jox nañu le président de la république carte blanche kon problème bi yëpp ci leader yi ñuy dégg ci waa APR lañ te jàpp naa ne ñoom ñi nga xam ne tey ñii ay maire lañ ñii ay député lañ ñii ay ay ministre lañ ñi ay directeur lañ nii n'était pa nu mu tuddee élection président de la république du ñu tax doon conseil municipal kon dañoo war a xam ne Macky Sall wàccoon ak ñoom askan wi wàccoon nañ ak ñoom kon ku gis président tey sànce yi nga xam ne def na ko ci biir Sénégal rawatina kenn ku ne fa nga dëkk boo demee di nga gis ne Sénégal euh, président de 12 ans def na presque triple la nga xam ne moom la régime yëpp def kooku bu taxawee tey ne leen suñu plan Sénégal dañ ko war a émergent dañ ko war a yeggale ne kii laa tànn ay na yowén ngor moo leen war a may ñu dem kenn ku ne ranger say ambition daal di ranger wu ci ginnaaw choix boobu léegi nag képp koo xam ne jàpp nga ne mot nga liñ lay doyee wala am nga fukk boo xam ne mun ngaa dem wala am nga popularité boo xam ne mun ngaa dem boo nga dem tu nous trouveras sur le terrain yaag Ousmane Sonko la ñuy yemale

ñun amuñu problème mu Amadou Ba amuñu problème mu Aly Ngouille Ndiaye amuñu problème mu Abdoulaye Daouda Diallo amuñu problème mu Amadou Mame amuñu problème kenn tey président bu taxawoon ne sama diggante ak son Sonko wax ji jeex na Ousmane Sonko mooy suñu candidat on battra campagne pour Ousmane Sonko kon ngeen xam ne yëf yi président de la république la loolu il faut ngeen xam ko jeunesse bi soit bi président mooy tànn bu tànnoon Marème Faye ñu topp ci ginnaawam bu tànnoon Karim Wade ñu topp ci ginnaawam amuñu problème x wala problème y seul le président Moi, le plan A plan B plan Z plan Y Comment tu va il faut ñu nous le président de la république président comment Nous wax euh, le président comment wax le les influenceurs de président de la république Nous point président comment wax rek président lu appel à directeur, yi responsables parce que nous war nañu Sénégal ndax man mi war nañ ma fekk si Touba kii war nañ ko fekk ci Dagana keneen war nañ ko fekk Ziguinchor kee war nañ ko fekk Thiès ñee war nañ leen fekk feneen kon amuñu les moyens de nos ambitions ni ñu leen di lancer appel comme ni ko le directeur Pape Modou Fall defee recevoir ñu dans bureau jàppale ñu xelal ñu wax ñu ne lii ak lii boo leen ko defee dina baax man ku président tànn moom laa tànn kon ñoo ngi lancer appel directeurs yi yëpp comme ministres yi yëpp ngeen jàpp ci comme ko Pape Modou Fall defee. tey nag ndaje bi lu ko waral mooy. ben groupe bu ñu tuddee soutenons président Macky Sall moy président rek la top topp man maay gaynde Macky influenceur président Macky Sall. plateforme bi nak ñun ñoo ci bokk nek amna influenceur am modérateur am ñepp a ngi fi parce que nekul les influenceurs non non nekul les influenceurs les panel la panel bo xamné soutenons président Macky Sall la dafa am nag ay influenceurs yu nek ci biir pour ñu comprendre ñun ñoo taxaw pour and ak président Macky Sall gungé ko. xamal ne ko képp koo teg ñu ñu ngi si sa ginnaaw président Macky Sall rek la ñuy topp topp ñu kenn président Macky kese la ñuy topp boo gisee ñu koy dëggal boo gisee ñu koy dëggal mooy président Macky Sall jamono yu mu nekk wéet na torop ñu wan ne ko nag président bul wéet ñu ndaw yi ñu ngi sa ginnaaw surtout noo Macky Sall am na 579 personnes ñëpp a ngi si ginnaaw képp ku mu teg moom la ñuy àndal ci loolu la ñu conquérir incha rab bi fas yéene nag déglu ko bu nee kenn ñu jóg taxaw campagnal ko ba mu neex di remercier nag euh, ndaje bu taaru bi DG Pape Modou Fall. Mhm. ndax biñ ko waxee da cee sawar génne xaalis bu bari jox ñu ne ma gaynde yéen liggéey rek ngeen di def doxal leen bu soobee yàlla lépp loo leen soxla ñu ngi sa ginnaaw kon DG Modou Fall ñu ngi lay ñaanal li nga mën ren yàlla na nga ko mën déwén. parce que nag wéet nañ ci yoon bi torop contacté nañ ministre yu bari jëluñu seen téléphone DG yi maire yi ñëpp contacté lañ leen kon ñu ngi leen di ñaan jot amul mais may leen ñu tuuti temps. parce que lii dañ koo bëgg a dëggal ba sénégalais yëpp jot si dañ koo bëgg a dëggal ba askanu àddina yëpp xam ne ñun président rek la ñu topp topp ñu kenn soo déggee nag ñu ne soutenons ñun dañuy soutenir Macky Sall maanaam lépp loo xam ne ñun Macky Sall mi ngi ci rek ñun dañ cee ànd ak moom moo tax ñu tuddee ko soutenons suñu plateforme bi ñun dañoo taxaw pour leen ñun Macky Sall su lum ñu woo rek ñun comme ñun moom Macky Sall moo ñu doy ñun Macky Sall la ñuy tànnoon Macky Sall nag nit boo ko doyloo da nga koy bàyyi ak lam la maanaam lam def noonu la ñun bu ñu kii la buñu ñu won na Yawou jall la tan ñun paré nañ pour dem and ak Yawou jall pour battre ko campagne parce que ñun Macky Sall la top té tamit ñi lancer appel pour ñëpp képp ko xamné yow benno bokk yaakar nga bokk man je dis pas de paire cassé waxuma wa paire cassé képp ko xamné benno bokk yaakar nga bokk Macky Sall bu ki la ngel la nañ leen gore ngel la nañ and ak mom ngel la Macky Sall lepp lo xamné né war na ko def defal nañu ko kep bépp membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar Macky Sall defal na leen lepp kon ñun lenn la ñu war a def mun buñ nangu mu gën ñoo gore ñun it dañoo war a gore ñëw fekk si ko si lu mu bëgg loolu la ñu amoon lu ñu wax moo tax ñu ne kon kan la ñu ñëw ñu toog ñu waxtaan ñun ñëpp ñu ñëw ñu waxtaan ñu ñëw gis ak yéen pour wax leen ne ñun ànd nañu Macky Sall ci décision bu mun a jël dañoo woo képp koo xamante ne influenceur président de la République nga ñu ngi la ciy woo ça veut dire que ñu xàccandoo dóorandoo maanaam nañu maytu ñi nga xamante ne bu ah, ëllëgee maanaam dañuy am ay keneen day gën a déposé candidature am a ànd ak moom donc dañoo ànd maanaam cinq ans yi nga xamante ni génn ànd ak président de la République ñuy dóorandoo di xàccandoo bu nu kenn divertir maanaam comme li euh, sama collègue bi waxee rek abulo maanaam bu président Macky Sall ne yaawu jàll la yaawu jàll la ñuy top bu président Macky Sall ne leen topp leen Ousmane Sonko bal naa ko ñu topp Ousmane Sonko ñun ma Macky moo ñu doy boobu nag comme ni ko euh, comment dire coordinateur sutono waxee Mohamed ñu ngi woo bépp autorité bàyyi ñu kenn képp koo xamante ne président Macky Sall sagal na la sigil na la maanaam jàppale na la sa biir famille ja yëkkati sa biir askan maanaam bu décision bi wàccee nga ànd ak président Macky Sall comme abu loo waxee rek maanaam ça veut dire que bu décision bi wàccee ñun duñu bàyyi mhm. maanaam ku jàkkaarloo président Macky Sall non non non amul benn problème maanaam guerre day saf nucléaire mhm. boobaa ñun ñu ngay jàkkaarloo ñu influenceurs yi Abonnez-vous Sénégal abonnel ci Thiowli Sénégal. abonnez-vous Thiowli Sénégal. abonnez-vous Thiowli Sénégal. abonnez-vous Thiowli Sénégal. ndax man li ma soxla ci xibaar yu wér te woo Thiowli Sénégal.